wax man du ma wax ak ministre bi mhm. la ma ko waxoon ba ma demee police mhm. la ma waxoon ne ko su ma jinnee mhm. wallaay bu reppee te moom jeexal na man dama nëbbu de jeexal na en finalement jeexal na jeexal na bu ko neexee bu ko naqadee jeexal na bu mu yàq nag avenir am mënoon naa rafetlu réew mi ba dem am way woo xam ne ba léegi mën naa dem ba yàgg sax mu ñëwaat réew mi waaye fu ne nii moom tafsir tam sax bëggatuñ ko. doy na nag. ministre bi aas wax nag. kooku. maa ko gën xam. xam naa ministre bu baax. na dem Fuuta laajte.